jàppal ñoom mooy ne dañoo sàgganee julli julli waaw waaw duñ julli waaw julliteyaa bi mm-hmm. ci seen làmmiñ rek la nekk moo tax mu ne waa doon ama furida alayhim ñuy ñuy ñuy caaxaane ci li nga xam ne loolu la yàlla faratal si ñoom ci ay julli mm-hmm. moo tax mu ne te xanaa xamuñ ne julli yooyu mooy li ñuy teqale diggante ak yéeféer yi waaw mu ne te julli ci doomu aadama mu ngi mel ni bopp mm-hmm. bopp soo ko dogee jëmm ja defe naa dootul dox moo tax mu ne julli buñ ko buñ ko dindee ci julli rek mu ne bu boobaa jullit nekkatu fa moo tax mu ne wa hayaatu maqtu raasi mustahilatun mu ne dund koo xam ne amul bopp mu ne loolu lu xéeme la tu mën a am mu ne moo tax mu ne képp koo xam ne dafa saggan mu dal di bay julli sagganee ko mu ne kooku génn na ci lislaam atool nekkatul ci lislaam moo tax mu ne ndax lu tax loolu mu ne faqad suila ahlu naar maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin mu ne li ma sukkandiku ci loolu mooy ne waa safara bañ leen baleen malaaka yi ne nañ laajte mhm. xam nga loolu soxna Aysatu laajteeb yejji la mooy laajteeb xaste xam nga ba pare waaw xam nga ba pare di laajte mhm. ab tam nga bugg a naqaral ki lay tontu mhm. ndax bàyyi foos mu tontu mhm. mu ne leen waaw malaaka yi laaj leen gars lan moo tax ñu cëppi-cëppi biir safara malaaka bi ne leen hey seen borom mu ne maa salakakum fi saqar lu ñu wax lam naku minal musallin ñun julli bañ ñu digaloon moom lañ bàyyi woon daawuñ julli julli ñàkk julli boobu moom moo ñu dugal tey safara mu ne waaw léegi nag lu ngeen bëgg yàlla defar le defaral leen qaala rabbi irjiuni mu ne yàlla dellooñu àddina ñu jàpp julli def lépp loo xam ne loolu nga ñu san lu leen yàlla tontu mu ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha mu ne yàlla mu ne ab jajj maa lànk ma bañ lii kaddu la boo xam ne ñii rek ñoo ko sañ a wax te li tax ñu koy wax moo ne dañoo ñàkk pexe nit ki nag su ñàkkut su ñàkkee pexe lu ko neex man na ko wax mu ne waaye ñii boo leen delloo tamit lañ nekkee woon rek la ñu nekkee waat nit ki lam yaroo ak lam miin ak lam xam loolu foo ko yóbbu loolu la moo tax doom yi nañ leen jàngal julli ci bi ñu nekkee ndaw yonent bi sallallahu alayhi ne juróom-ñaari at na leen mhm. ko jàngal mhm. bu ñu amee fukki at julli wu ñang na nga leen dóor mhm. nga teqale seeni tëdduwaay góor ñi nañ demee nii jigéen ñi demee nii ku nekk palaasam mu ne loolu jullit noonu lay def ci ay mbiram góor benn góor ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal ma ñaan koo xam ne def may dugal ajana yonent bi ne naa la ko ñaanal waaye ah inni bi kasrati sujud mu ne danaa la ko ñaanal waaye dimbale ma ci sujud yu bëri mu ne gannaaw bu ajana te nga ne naa la ñaanal nga dugg ajana dimbale ma ci ay sujud waaw loolu mooy wooy ne ko jullil del julli mm-hmm. farata di julli naafila waaw julli julli julli yu dëggu te julli yu wér mm-hmm. mën na julli du jal borom ajana Mm-hmm. ndax loolu lañu yàlla wax mm-hmm. yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo taxawal seen julli te dëgëral ko te sàmm ko mm-hmm. ulaayika humul waarisuun allazina yarisuuna al firdaws hum fiha xaaliduun mu ne ñooy ñi nga xam ne ñooy doon ajana bi gën a kawe ci ajana yi te ñu tuddee ko firdaws yonent bi moo koy ubbi bésu altine yàlla nañ ci yàlla boole mu ne ñooñu ñoo ko moom mu ne moo tax ku bugg a jege sa borom rek del julli ku bugg sa ñaan nangu tam del julli yéen dem nañ ba ne assalaatu tajlibu risque julli dafay xëcc wërsëg di ko jegeloo ci ka koy def waaw mu ne nit ñu baax ñi suñ nit ñu njëkk yu baax ya lañ am rek yépp la leen ko may mooy ñeme jaamu yàlla di ñeme julli guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na julli di julli ba ndey Aysa ko lu tax ngay julli te yow yàlla jéggal na la sa bakkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne afala akunu abdan shakuran xanaa du ma nekk jaam bu sant boromam ca la ko boromam may mhm. loolu taxoon moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu takkee umu salamata muy sëy si mhm. gis nga ndey Aysa dafa daw di laajte ndax dafa dégg na ko ku am xam-xam la mhm. ku mën a julli la ku mën a jaamu yàlla la ku mën a toppatoo ci karam la muy muy muy laajte lan mooy jikkoom pour moom na muy def ba bu ñëwee du ko win ah waaw xam nga wujjee rek fiir waaw waaw <laughs> ñu ne ko hee kooku de ku mën a julli la <laughs> mu ne ah mën a julli de moom ti bi ku def loolu rek sallallahu alayhi wa yow lay àndal mhm. mu ne waaye danaa fexe ba duma ci man mhm. kooku bu ñëwee bu bu ñëwee balaa balaa balaa taali añ wala balaa togg dana jàpp julli ñaari rakka soog a taal mm. bu toggee ba fare ba ba muy muusal pour yekk des dana dem jàpp julli soog a ñëw yekk <laughs> bu ñëwee bay taajal yonent bi dana dana daal di julli daal di ko jël sukku teg ci yonent bi sallallahu alayhi balaa yonent bi lekk dana kabar julli sëlmal ñaan ñaan ci ñam bi yàlla def ko muy ñam bu barke <laughs> yàlla def ko ñam boo xam ne ku rekk yàlla bu mu ko lekk <laughs> mhm. gis nga ko ko ne kii nag ku jafee wujjee la la waaw <laughs> xam na loolu am na jigéen ñoo xam ne léegi boo leen ko sasoon dafay ñàng balaa ngaa taal añ jàpp balaa ngaa muusal jàpp balaa ngaa tegal sa jëkkër jàpp boo ko tegalee bu commencé nga jàpp julli mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla xam naa lu jafe la ci jamono ji wax mm-hmm. gars yi kenn ku ne am na yoon boo jublu kon nag julli daal wax dëgg yàlla liñ ñu mën a wax daal mooy ahamu arkaanul islam moo gën a déggu te moo gën a firndew te moo gën a am important ci ponk lislaam yi mm-hmm. man aqaama faqad aqaama diin boo ko taxawalee mm-hmm. taxawal nga diine boo ko bàyyee bàyyi nga diine boo ko defee topp nga yàlla boo ko mm-hmm. bàyyee mooy nga yàlla boo ko defee yaa ngi ci ndigaleel yàlla boo ko bàyyee léppul yàlla digle woon ba nga ko donte loo doon awaluma yu xaasabaaleel abdu salaa jaam bi buñ ko suulee bañ a ko suul raxasu di ñibbi seen kër mu ngi dëj dëgg cepet cepet dàll yi ca lañ koy ekkati ca bàmmeelam naan ko ndax daan nga julli in salahat salahat saairu amalihi wa in fasadat fasadat saairu amalihi julli su baaxee ñu continuer laajte koor ak asaka yeneen julli su baaxut ñu ne koo xam ne sigaratut julli kooku jaratut laaj leneen kon nag yal nañu yàlla may ñuy rafetal suñuy julli yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf imaam Abdoulaye Ba bu neema nazir waxtaan wi leer na nag julli comme li nga wax rek nekk na benn ci ponki lislaam yi te wareef la pour bépp jullit mm-hmm. ñu def ko ci waxtu wi amut sàggane ko di ko dajale war a ñàkk koo def comme yenn joolaa yi poli niñ dee def daal waaw ñu ngi gëré mati bu baax ci sa teewaay ci suñu programme exploring islam alhamdulilah jërëjëf jërëjëf ñu eh, ngi lay ñu ñu ñu di nuyu wa Gambia yépp diko dalé borom réew mi ba wa GRTS ñëpp mm-hmm. ci ndimbal bi nga xam ne yéen koy dimbalé jullit ñi tok sa kër rër ba suur mm-hmm. wala tok ak sa njaboot di sétane ñuy wax li nga xamné xam-xam la pour ñëpp wax dëgg yalla sant yalla la ñu ngi ñaan yalla ñu ngi sant yalla mi nga xamné mo ñu jaglé suñu télévision bi ba ñuy mëna def li bitim réew yépp di ci jëriño mm-hmm. kon kiko fi def yalla nako yalla fay wa yalla na jëm ci kanam mu nek ay télé yu bari bari bari bari fuñ bëgg mu egg ci adina bi yàlla na fa egg li lañu wax ci wi may ci suñ programme exploring islam Aysatu Fay mo len doon indil programme bi be benen bés bu ay ci waxtu wi wa akhiru dawana anil alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. daal man waxuma ci dara naaj bi nag yooyu tamit nag ayda ah, nawet bay nuyu nawet bi maa man nawet gi laa ragal doo ko ragal ba daf ma man mii de yàqu-yàqu daaw yu mu def yàqu-yàqu boobu nag moo tax ba national disaster management waaw jóg nañ ci taxaw ci temm def li nga xam ne mooy disaster risk reduction asalaamaaleykum loolu mu demee maaleykum salaam yooyu ministère su suba laay jóg su suba de nga ah. dama lay seet si waaw romb benn gota boo xam ne. Ah. dafa nekk ci mbalit. nit ñaa ngay buub sa suba ba léegi mbalit ma ne du jeex rek. uyu ma fi. waaw gis nga gota boobu ngay wax nii. may wax ay da léegi yëfi tàngaay bi ne ko nawet baa ngi ñëw. waaw mu naan ma nawet la ragal ndax yàqu-yàqu bi xewoon daaw. te ma naan ko léegi national disaster management jóg nañ ci. def ci li nga xam ne mooy disaster risk reduction. mu naan ma naka la demee yàlla dafa def na gis nga gota boobu ngay wax. te def ci mooy li nga xam ne moo njëkkee ci liy indi yàqu-yàqu gis nga gote yi maas dafa doon ay pax yoo xam ne dañ ko ubbi pour ndox mi war faa romb dugg ci biir aw dem fa muy dem waaye soo jëlee gote yooyu nga jël ko mbubbit ko ba mu fees del ndox mi ñëw can ca kawam du am fu mu dem ah, fu muy dem waaye si biir kër yi lay dugg rek dafay dugg ci biir kër yi ah. su duggee ci biir kër yi nag indi yàqu yàqu waa ma ñuy xaar ba ñaari weer di des pour nawet bi ñuy tabaxir ñooñu naka la ñoo def ak ndox gi. gis nga ñëw ñooñu itam ñeneen lañ ci ñi nga xam ne ñooy indi lii nga xam ne mooy yàqu-yàqu ci nawet bi ndax nag nga xaar bañ ne des na benn weer wala ñaari weer nga ne yaa ngi samp kër waaye su fekkee woon da nga samp kër goo xam ne sax da nga awale yoon sax ba tey du du waaye kër goo xam ne da nga ñëw rek ne ko ndatt ci suuf soo ko ne ndatt ci suuf ndox mi agsi su ndox mi agsee rek ñeenu ko yóbbu ko ndax defuloo ko building boo xam ne building bu solide la seetuloo ñu la ko war a liggéey nga liggéey ko waaw waaye samp nag ci yoonu ndox mi nag ñett la ci nga xam ne mooy